commission communication ak information bu conseil municipal bu Linguère bi nga xam ne le maire Aly Ngouille Ndiaye moo ko jiite le ministre de l'intérieur par ailleurs suñu maire nag di Aly Ngouille Ndiaye li mu def ci dëkk bi loolu yomb tawax ci lim ndax jéggi na dayo boo ko jëlee ci pàcc par pàcc buñ ko tàmbalee ci ndaw mi ndaw ñi jàng jàppale na leen ndaw ñiy def sport jàppale na leen boo ko seetloo ci biir Linguère rekk stade bi plus de trente-huit millions la ci def bu daara même chose ba subvention aux ASC waxtu wu nawetaan waree tàmbali laata bal di daw day fekk dëkk bi équipe bu ci ne jot cent mille francs subvention ci vingt-trois ASC loolu at mu jot la gone yi jooyatuñ mayo njàngale mi dafa def programme ubbi tey jàng tey moom moo ko njëkk a tàmbali ci Sénégal programme ubbi rek joxe fourniture fourniture yu mat sëkk école yëpp programme chaque année mu tabax classe bi mu ñëweek léegi pour mottali école yi bi mu ñëwee. dafa fekk dëkk bi ci wàllu infrastructure ñu tumuranke lool ay tali tey artère yu gën a mag ci Linguère yëpp da koo def tali yii mu def ko ay pavé boo ñëwee ci wàllu santé li muy injecté ci santé kenn xamul nu muy toll parce que da koo def priorité budget commune bi li ci ëpp ci sante la koy dugal dugal ko ci éducation ci éducation ba tey pour ñaax xale yi ñu jàng def na benn journée de l'excellence boo xam ne ci lay sargal élèves yi gën a xarañ ci dëkk bi di ci sargalaale ah, jàngalekat yi xarañ te dem retraite di ci sargalaale képp koo xam ne kii acteur u éducation nga te nga amal milieu bi njëriñ ba ñu ràññee la ci wax dëgg yàlla réalisation yi jéggi na foofu institué lu ñu tuddee jardin communal parce que ku ne xam na ne am na jamono gone yi Sénégal dañ doon daw di dem Europe ku ci nekk di wuti loo am moom dafa gëm ne gone yi dëkk bi ñoo war a toog defar dëkk bi mu ngi leen di xiir ci mbay di leen ci xërtal de jël ay hectares yu du jeex def ci ndox jébbal ko mbar gone yi ñuy yëngatu ci wàllu mbay tey lépp lu mbay di meññ loo doon wuti wuteetoo ko yaa ngi koy mën a am ci marché Linguère bi ak yeneen ak yeneen réalisation yim fi def macha allah mucc na ayib xoolal boo gestoo rek dangay ngay seen hangar industriel bi nga xam ne